plan assainissement Dakar yëpp. xam nañ ko mais koy faj wax naa foog xam nga li nga naan dañ responsable état bi. parce que nit ñi dañuy jaawale. responsabilité service yi. service étatique. fonctionnaire bi def faute. ñu bako fa imputé ko. à l'état dama lay wax. benn maire boo xam ne sa dëkk. Mhm. xanaa lu bon ma yaa war xam sa dëkk. nga fekk foo xam ne kenn kenn kenn kenn waru faa jaay nga daggat ko joxe ko. Mhm. service urbanisme visé ko. Mhm. cadastre visé ko sous préfet visé ko. kon loolu service yi la. mais il faut non seulement ñoom mais dañoo war a sanctionner. service étatique yi parce que da ngay xool ñu mel ni yow. Mhm. dajale seen xaalis 15 20 millions ñu defar lotissement woon catalogue yu rafet génne ko télévision campagne ko ñëpp di ko gis nga dem dëkk fa mais xool li xew Bambilor. xool côté Bambilor Sangalkam. jaay nit ay nit ay 40 millions 30 millions. ndox mi nga fi nga ko tabax ay ndox fa nekk bu tawulee ndox mi génn. te am na li ñuy wax zone non ficandi sénégalais. ñoo ko respecté wul. boo demee France. Allemagne États-Unis am na dëkk place yoo xam ne. bi mm. àddina sosoo ba léegi. Mm-hmm. kenn laalu ko. mu mel ni euh, acteur politique yi situation bi lañ doon xaar ngir wàcc wat langue politique bi fum mu nekk nii boo ubbee rajo yi ak télé yi dafa mel ni ñoo ngi ci déconfinement politique ku nekk moo ngi joxe euh, ay di def déclaration jëm ci situation bi inondation mais apporter wuñ solution mais tamit est-ce que war nañ xaar ba situation bi lu métti lu mel ni dal askanu Sénégal ñu génne dico politique honorable waaw xam nga moom laa wax muy muy muy euh, gis nga ni ñu ni ñu génnee ku nekk dem ci ci ci fa mbënd mi ne suñu ko defoon yaa quatre mois bi pandémie bi amee ku nekk dem ci nit ñi massuwu leen takku dem ci hôpital yi nit ñi xam ne lii moo leen yëkkati wande politicien Sénégal ñaari mbir moo ko dal su tawulee ñu ne ki yor réew mi dafa ay gaaf su yàlla ñëwee ak tawam ñu ne cuune la mënu fee jële mbir mi te ni ko waxee ñii dem di seeti ñi ñëpp gisaguma ku ci wax ne nii la ñu war a def. Mhm. dañuy wax nii rek ngir wax. mais oui parce que parce que li ma dañuy dellu fa fa ñu nekkoon rek man ku ma woo. Mhm. jox ma crayon ak feuille. te wax naa waxaguma ko président Macky Sall mais man pare naa fi ma toll donte sax bëggatu nekk ci ay bureau du liggéey bëgguma sax. Mhm. mais man am naa gis nga wàll fi ceinture Dakar yëpp laa la wax. xaalis bi ñu ciy wax dama ne mun nañ koo def. lo xamne ne dafa egg su fekke ay canaux à ciel ouvert lañu def. ah bon mais bien sûr. Ah. mais fi ne xoolal xam nga dama la koy won kon est-ce que ça veut dire c'est pas parce que jox nañ ko expert yi ko war a defar. waaw mais xam nga tam xam nga euh, bo bo jëlé ben expert. Mhm. ne ko defal ma bassin de rétention defal ma collecteur de la lay defal. Mhm. mais soo ne bala nga def xaaral ma seet ñoom xaaral set seet ña nekkoon SONES. Mhm. xaaral ma les ingénieurs environnementalistes yi. Mhm. xaaral ma seet urbanistes yi ñi xam terrain bi. waa ñi xam terrain xam ne sant wu ma leen dara. Mhm. laaj leen lan la ñu gis ñu toog waxtaan. parce que foo def bassin de rétention. nga def xoolal li xew euh, li xew euh, zone de captage. du dem nga zone de captage. zone de captage naka la tudd xam nga phrase bi eggul. c'est la zone de captage des eaux pluviales noonu la tudd. D'accord. C'est la zone de captage des eaux pluviales. Man, je suis directeur général de SONES. Hmm. Amical des cadres de la SONES. Hmm. Avec inspecteur des impôts de l'Union Nous avons une zone de captage, nous avons une Nous avons fait le cadre de Je man leen du ko def parce que fi yeen xam ngeen bu baax ne zone de captage des eaux pluviales la. Hmm. ndox bi bu fi da fay infiltrer jaar autoroute dem usine usine point B gis nga euh, fi jàkkaarloo EMG. Hmm. xam am benn usine des eaux foofu. absolument ndox bu jaar foofu moo daan alimenté. kon foofu bu ma déggee ngay wax waruñ fa won dëkk sax waruñ won xalaat difa fa dëkk. c' une c'est une faute d'état extrêmement grave. zone de captage. xam nga loolu la koy woon. Hmm. ba ñuy tabax Patte droit zone de captage nga fi. lu tax tabaxuñu ko il n'y a pas 50 pas mètres de de d'écart parce que nature sol beaucoup C'est zone d'infiltration parce que Bourguiba xam nga la route des puits c'était la route des puits de captage bu versant il faut la ndox mi daje bu fu dugg ci si autoroute point B ñu dem ko ja ay kër man je refuse je le dis clairement. donc war nañ def euh, li li gars di ah, war nañ auditer li nga gestion inondation ah. parce que li ngay wax lu grave euh, honorable c'est extrêmement grave dama lay que hmm. xam nga waxal. absolument xam dañ leen ci tout à fait. té ñi hmm. man proposé la on m'a proposé 30 ou 40 parcelles j'ai refusé. sur zone de captage. dañ ma ne ou 40 parcelles ma bañ. ñi ma ko séq li ngi fii ba mu fa lañ ko séddoo. xam nga leen. xam nañ ma xam naa leen. ñu ngi dund. mooy ñu la wuutu woon kon. mais du ñoom rek ak ak ak direction bi état bi fa nekkoon c'est ça la vérité. état bi fa nekkoon jamono jooju. dama ne la. Hmm. yooyu bu ko xam nga jox naa la élément. Hmm. man maa nekkoon directeur général SONES. Hmm. ba 93. absolument ba ma fa jógee lañu def loolu séddoo ko dafa ko parcelle. Moi, moo tax boo en 2012. même zone de captage je de Bellevue. Mhm. mais centrale le Bel Air bi mu mais euh, zone de captage bi de dugg. Mhm. foofu war